dix postes de santé ci district Kër Massar ñu ne poste de santé bu nekk dañ fay jël bàjjanu gox bi mu ñew ndax programme bi programme bàjjanu gox yi la district bi 72 heures lañ organisé mais 72 heures yi dañu né premier jour bi vendredi dañuy def wàccee kamil ak ay ñaan ñu ñaanal yalla wa district bi muy commencé ko ci médecin chef district docteur Amady Ba mi nga xamné ni nii moo ñu gunge ci lii waaye tamit ñaanal ñepp ño xamné ño nek ci soufa muy équipe cadre district bi ak sage-femme ak maîtresse ak infirmier chef de poste yi